ki kii présenté gan ñi di leen nuyu la. affaire étrangère lay def xamu leen. ah d' accord d' jàll si. sëñ Abdoulaye Bissou. suñu ji waaw. am déedéet man xam ne. nga affaire étrangère yooyu def léegi yow da ngay ñëw nii ku ku ñëw nga wax kuy nuyoo nga wax mooy kan bu ko defee wax waaw doyen doyen del woote man moom moom ay woote mu war def discours waaw day def discours ba nag doog a nuyoo day def discours ba nag doog a nuyoo ñëpp dañu nuyoo mu doog a def discours waaw dañu nuyoo góor ñi ngay bu leen woow di ñëw comme sa soxna ki mooy excellence son excellence monsieur l' ambassadeur Jean Koy Ntonga mooy ambassadeur Cameroun moo jiite ambassadeur yëpp. ki ci topp mooy ambassadeur Gabon. l'ambassadeur Gabon. Régis Onanga Ndiaye. ki ci topp mooy ambassadeur Burkina Faso Jacob Ouédraogo. Hm. Hm, hm. ki ci topp mooy ambassadeur Arabie Saoudite Algérie ci topp mooy ambassadeur Algérie mooy Chebi Bolem Chebi ki ci topp mooy ambassadeur Italie

ambassadeur Roumanie Roumanie ambassadeur Roumanie ki ci topp mooy ambassadeur Abami Mari Abami Ari bu Niger ki ci topp Mohamed Reza Deshiri ambassadeur Iran Iran ki ci topp mooy ambassadeur Kourakov в ki ci topp mooy représentant na système des Nations Unies coordonnateur muy Siaka Koulibaly Nations Unies am na fi aussi euh, représentant roi du Maroc mi toog délégation mag la أعضاء الوفد المغربي الوفد المغربي waaw kii ci topp mooy ambassadeur Corée du noor mi ngi fi moom tamit góor la góor la ambassadeur ambassadeur Corée am na ci aussi ci wàllu jigéen ñi ambassadeur euh, bu Kenya madame Muyindi am na ci tamit ambassadeur euh, bu Afrique du Sud madame Kouab am na ci aussi ambassadeur bu na ci aussi chargé d'affaires yi chargé d'affaires bu Maroc mi ngi fi ñëw na mm. Mm. am na euh, Abdel Salam Malé ambassadeur Argentine mi ngi fii ñoom dama ko gisul woon ambassadeur Argentine madame Levagui mi ngi fii bienvenida bienvenida Euh, chargé d'affaires bu Égypte mi ngi fi alqaib bil amal fi sifar al misriya bi Dakar shukran Saad shukran ki ci topp euh, chargé d'affaires bu madame Audrey euh, Abayena Euh, chargé d'affaires bu Inde mi ngi fi Inde Palkomar waaw représentante bu PAM madame Terki mi ngi fi programme de Nations Unies Euh, chargé d'affaires bu Irak monsieur Xalaf mi ngi fii alqaim bil amal fi safara al iraqiya bi Dakar chargé d'affaires bu Libye chez Zental al qaim al amal fi safara Libya chargé d'affaires bu Palestine القائم بالأعمال فلسطين السفارة الفلسطينية conseil ministre conseil Florent Plaszi bu représenté France mi ngi fii Mohamed Abdel Faz euh, Abdel Hafiz conseil bu ambassade bu Soudan mi ngi fi moom tamit. Mustashar fi safara Soudania. Safira. Sonia Pataka euh, conseillère ci ambassadeur ambassade Angola mu ngi fii moom tamit soxna si Aydara euh, bu ambassade bu Guinée-Bissau mi ngi fi am nañ fi représentant ambassade Indonésie attaché la Anis Seta Setia Indonésie Abdullah ambassade bu Mali Mali Mali Mohamed Abdullah euh, donc am nañ ci aussi association mondiale de l'appel islamique ñii fii jamia daawal islamiyal alamiya Euh, représentante euh, Union européenne madame Harmonie Kourtchevisi mi ngi fi

ONG Wabi aussi ñu ngi fii nadwal alami li shabab al islami ONG Al Ata aussi mi ngi fii jamiyatul Ata délégation yi ñëpp nag euh, madame l'ambassadeur directeur du protocole faatu Gaye moo leen jiite madame Fatou Gaye directeur du protocole waaw euh, ñu ngi ànd ak euh, Ndiaye Sour Diouf mooy chef bureau cérémonial ak euh, Gawsu Cissé aussi ci protocole bi la ni al usra al malikia min Kenya min Kenya Kano al Kano ravage hmm? yes. And everybody, you know, he's, he's very grateful, Cheikh. You know, uh, uh, ki ki moo ko andil mooy Dërkul Xaadiriya moom moom moom miin na fi moom itam moo indoon yére yi dem moom itam joxe ko mais dañ ne faaw ñëwaat ñu ànd ak moom. moo ki ñoo ànd moo uh, naqibul asraaq Cheikh Amadou Rafaa yi Cheikh Amadou Rafaa yi asalaati sërkin yaa kii mooy sërkin yaa kii moom itam moo euh, buur bi ñoo ànd ñoom itam du si ne waaw loolu ñu joxe ñoom ñoom ñoo ko yor toujours di ànd ak ñoom nga ne bu ñu génnee rek dañ koy dañ koy génne nga ne ñoom dong ko sañ yor moo tax mu ne yow yaayee loolu moo tax mu andil la ko parasol bi dubaayee lañu jox léegi wala wafdul usra al malakiya min bikum ahlan wa sahlan maintenant euh, ñuy introduire ambassadeur des ambassadeurs du Sénégal mooy ambassadeur du Cameroun monsieur Jean Ntonga l'ambassadeur du Cameroun, doyen du corps diplomatique accrédité au Sénégal. Lettre de félicitations et vœux à vous-même et à la communauté maurice du Sénégal à l'occasion de la fête du Grand Magal. Monsieur le calife général, à l'occasion de la célébration de la fête du Grand Macal de Touba, en hommage à Cheikh Amadou Bamba Baké, le fondateur du mouridisme, Que Dieu ait son âme. J'ai l'honneur de vous adresser, au nom de tous les membres du corps diplomatique et à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations et vous exprimer Mères et musulmans, pour l'invitation que vous avez bien voulu nous adresser pour assister à cette auguste manifestation. Je saisis cette opportunité pour vous présenter mes voeux les meilleurs de succès et de santé pour vous et votre famille, ainsi que ceux d'unité et de prospérité pour la communauté mouride et pour le peuple sénégalais frère. Veuillez agréer, Monsieur le Calife général, les assurances de ma haute et différentes considérations. Le corps diplomatique. ñu ngi jégalu de dañoo dañoo waa délégation bu Comore ñu ngi fi ñoom tamit bu Comore il di Comore Brésil ak Comore. mën nañoo ñëwandoo Brésil et Comore ak Comore. Brésil et Comore. moo jóge Brésil. mooy bu Brésil. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ bi ki nga xam ne moo jiite ambassadeur yëpp ndax ñaare dañ koy tànn ci ki fi gën a yàgg li ci ëpp mooy ambassadeuru Cameroun tey moo jiite délégation bi nga xamante bi ci la ambassadeur yëpp ñëw mu ñëw nee na ci màggal gi nga xamante ne bi moom lañ def ci at mi ngir sargal ngir kañ Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante ne bii moo sos yoonu murit mu di ko ñaanal di sàkku ci moom ñaan mu ne mi ngi am mbégte di taxaw tey ànd ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ŋànk kuréelu corps bi muy ñi nga xamante ne ñoom la seen réew yabal ñu ñëw teebal leen fii ci senegal nee na mu ñëw jiite leen nee na mi ngi lay nuyu ci turam ak santam. di la sargal ak ci turu mbooloo mi àndal ak seen njiiti réew yi nga xamante ne bii ñoo leen yabal mu ne itam ñu di la sant ci boole gi nga leen boole ci xew wi jaar ko ci ministère des affaires étrangères ñu invité leen ñoom ñëpp ñëw te nit ñëwee ren ñëw nañ ñëw goo xamante ne bii mën nañ ne koo ñëw ndax benn kaar lañ daan doon ren ñaar lañ doon ndax xajuñ ci benn bi loolu lépp nag kilifa yi ministère bi nga xamante ne bii ñoo leen di jottali li nga xamante ne mooy woote bi ñu jëf ci jëf yoo xamante ne bii bi leen son son excellence Aïssata Tall Sall euh, mi nga xamante bi moo moo jiite kër ga joxe ndigal mu jaar ci secretaire général euh, Mame Baba ñëw ci soxna Fatou Gaye ñëpp maanaam euh, taxaw ci woo leen yemuñ ci rek bind leen ndax bu ñu leen bindoon rek mën naa am ñu jot dina ñëw jëriñoo waaye déedéet dañoo bind ba noppi toppaat ci woo leen ba tax na daanaka koo fi gisul rek ku fi nekkul la wala ku am ngànt waaye ñëpp bëggoon nañoo ñëw kon nee na mi ngi lay sant di la sargal di sàkku ci yow ñaan di la eh, ñaanal itam yàlla nga yàgg koo jiite di ñaanal itam eh, mboolem murit yëpp di ñaanal jullit yëpp di ñaanal itam Sénégal yëpp nee na kon mu ngi lay xamal ne eh, mi ni mu lay tàggoo rek du la tàggoo ci tàggoon wudul rek di la maanaam feddali kóllëre di la feddali nuyoo di la feddali siyaar moom yi nga xamante bi mooy ambassadeur bu Cameroun moom mooy signé lettre bi ci turu mbooleem mbokk yi mu àndal lépp mu corps diplomatique bi ak organisme internationaux yi nga xamante bi ñoo fi ñëw ambassadeurs yi tey nag am na fukki ambassadeur ak juróom-ñett yoo xam ne teew nañ ak juróom-ñaari chargé d'affaires nga xam ne ñoo ñoo topp ci ñoom ak 25 délégation ñaar fukki délégation ak juróom yeneen ak ñeneen ñu ànd ak ñoom ba tax na bari bari nañ bari goo xam ne lim bu toll nii mosuñu fee ñëw ñëpp nag ñëw am ci yow yaakaar ñëw bokk ak yow dëkk bi euh, màggal gi ñëw euh, sàkku ci yow ñaan ñaanal la bokk ci mbégte mi nee na loolu moo leen indi woon asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu salaamaaleykum euh, monsieur le doyen du corps diplomatique euh, le khalife général de Mouride Cheikh Mountakha Mbacké vous salue et a beaucoup de plaisir de vous recevoir ici et parce que votre participation à cet e-, grand événement symbolique le va droit au cœur ci ñun la amul benn bis bu ñu waaye ñoom def nañ jëf ju rëy loo xam ne gis ko waral sant ñu bu baax di képp ñu waaye bis bu rëy la ci ñoom waaye ñoom jëf li jëf liñ la ci ñoom. oui oui ce jour est un grand jour c'est tout pour eux pour pour, pour lui euh, donc. il vous remercie d'être présent et il remercie aussi au gouvernement parce que cette journée est une journée symbolique, est une journée historique que euh, si, euh, tout, tout, tout, ce qui participe à cette célébration euh, euh, euh fait euh, donc une action Euh, honorable et très appréciable euh, donc le cheikh ne ne ne ne sait pas vous remercier assez pour votre geste. Votre présence ici euh, montre que vraiment vous êtes ensemble. sur tous les plans le CER c'est que votre CES va renforcer nos liens et va consolider notre relation euh, sur euh, tous les plans le chef a dit qu'il ne menacera donc aucun effort pour renforcer ces liens. Oui, oui, oui. Donc, le chef vous remercie. Maintenant, euh, Fadilou Cheikh, euh, euh, Cheikh Ahmadou Mountakha, al-Khalifatul Aam li tariqa al-Muridiyya, yashkurukum jami'an ala hudurikum ma'ahu fi hadha al-hafl al-mubarak. وفي هذا اليوم التاريخي هذا اليوم الذي يمثل كثيرا يعني بالنسبة له وللمريدين وللمسلمين لأن هذا يوم عظيم ومبارك من أجل ذلك لا يعني الكلمات تعجز عن تعبير ما يكنه قلبه لكم لحضوركم هذا وكلما عانيتم للوصول إلى هنا لا ينسى أن يشكر كذلك جلالة الملك الملوك يعني يعني يعني أصحاب الجلالة يعني الملوك والأمراء وأصحاب الفخامة الرؤساء يعني الذين يعني يعني يعني تمثلونهم هنا من أجل ذلك الشيخ يقول ويدعو لكم ويطلب منكم دعاء كذلك لأن هذا يوم مبارك نرجو من الله تعالى أن يقبل الدعاء في مثل هذه الأيام وأن يدعو أن لا يجعل يعني الله سبحانه وتعالى جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وبحاجات يعني مقضية وأن لا يعني يكون إن شاء الله آخر لقاءنا طيب شكرا والسلام عليكم الشيخ يختم بالدعاء اي نعم الشيخ سوف يختم بالدعاء لكم ان شاء الله وللمسلمين donc le cheikh va prier will prier pour vous yes you know assalamu alaikum warahmatullahi you know we are very honored the sheikh said he is very honored to receive you here today because your participation in this big event, this great event, which represents, you know, everything for him and for all Murids and for all Muslims, because this is the great day that, you know, he can't uh, do something else, you know, uh, but he will, you know, uh, he's very grateful because this is a very short day. But this day, you know, uh, represent everything. Say, the Sheikh, you know, repeat and repeat again, you know, the meaning, you know, of this day. And he expressed, you know, his, you know, happiness to, that to receive you here. Because he knows that you represent yourself, but you represent your country, you represent your leaders here to this, uh, this event. And we pray that, this will not be, our last meeting here. He wish the best and he thank you, thank you, you know. sea, uh, uh, le, les agradece mucho vuestra presencia, porque, bueno, esta jornada es una jornada simbólica. Se, eh, eh, no tiene palabra para expresar su gratitud, para, porque eh, eh, eh vuestra mm, eh, eh, algo muy simbólico para él. No tiene palabras para agradecerles. Entonces, uh, Sheikh he will rezar for you. He will rezar para vuestros pueblos. He will uh, he, he rezará para uh, para los presidentes y reyes que representáis. Inshallah, uh, uh esta presencia uh, no será la última. Inshallah. Gracias para todos. je répète encore que vraiment, il ne peut pas exprimer sa satisfaction. Parce que vraiment, donc, votre cesse est quelque chose donc, inoubliable pour, pour lui. You know, the Sheikh said, he must repeat again, you know, his happiness. And he is very grateful to this present because these, you know, represent, you know, everything for him, you know. يشكركم شيئا هو يريد أن يكرر يكرر مرة أخرى شكره وبأن الكلمات لا لا لا توجد كلمة اللي يمكن أن يعبر عن فرحه وعن امتنانه ومن أجل ذلك يدعو لكم you know repete el jaque que que he dicho que que tenemos que repetir muchas veces más que es muy feliz de recibiros aquí. Gracias a todos.